bismillahi irrahmaani irrahim wasala allahu ala sayidina muhammadin fàtte dee rekk kay waral kenn dootu reew aka bew fàttee ka bon waral nit a bew bu dul kenn dootu reew aka bew bu dul kenn dootu am saf kenn dootu am lu waral ku koo xam ne xam na ni dee ngi ñëw tafaw mu ñëw nenem mu rekk a ko war te jéem daw yëfi ndaw tuubug mooy ak yaru moo war képp koo mën a gis dee gaa ngi dàqe te day jot ñépp kenn du ko raw laf mat la tiisoo lu dul mooy yàlla kiy juru ay laf mat la bëggit lu dul jub dong kiy juru yiw loo wér wérit wopp bis loo tedd tedd torox loo man manit tali loo wax waxit ne salawu loo sant sant ne mbas loo maare maare ne cam loo jaglu jaglu tawat àdduna yewwu ci yow bul bëgg nag lu fi nekkul bëgg loola du mbir àdduna kër la gu ñuy dox jëm ca kër ga ca kaw àdduna kër la gu ñuy jaamoo ko sonne bu wér alaaxiraa di këru xéewal lu bon fa ñëw koo xam ne nekk na cig jub tey ba ca bu wér bu ëllëgee ñépp ñee koo ñee te bokk ko naw lu ab jullit mën a am tey jii ci luy niru mbékk yóbbal la rekk na koy jaamoo ko sant di daw kër gi deful kër gu ñuy teddee ka tëdd di wéy ku man di fàttee ka bew bul fàtte mukk ka bew subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin